waaw dina am lu tax man rek waaye nag moom wax dëgg yàlla li waral siyaare bi mooy guddi gii lañ doon yees yees lu si ndax xëy na du ñàkk am ñu jàpp ne guddi gii la ku baax ki ñëw jamono muy nis sàmbar waaw loolu nag dafa mel ne baaxoon na yow lu ko fi nekkal ñu dikk ci guddi gi nga xam ne adduna am na ci loo xam ne puukari woon na ko jom bi jafe la lu tële woon sax loolu kéemaan am na ci boo xam ne yow mi ko fi nekkal di ko dund àgg fi nga àgg ci moom di Sëñ Tuubaa kese ci biir ak ci biti te ñun ñëpp ñu mën a maase ne Sëñ Tuubaa gërëm na la ñu wóor la bu ëllëgee da nga taxaw ca lu fa seen guddi gi yeesalaat suñu pas-pas ci yow ci Sëñ Tuubaa yeesal waa leen murid yëpp nag ñaan nga nangu la ko wax sama loxo bi jox la ko jox waa leen ko murid yëpp yeesalaat seen pas-pas ak seen jëmm Sëñ Tuubaa ci guddi Non è capito. Wah, wah, وأن ما طلع ما كان يستاهل ما احنا دايرين ما قلنا لي وتدخل المصلحة في يدي وفي داره يدي جوجي ويسجم جي لو كنت سنتوا عليه ndax defar rek lii nga defar lii nga defar waxtu wala te mosuñ ci jóg te bu jëkk ak tey wala na ne lim lim ne mos dana am ci yéet yi yéet yi mooy ñëw yàlla rek yàlla rek yàlla rek yàlla rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf

jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sama bopp yow ma toll yow sama bopp yow maa seen sax de damay kas ba yee leen ci caaxaan ba yee leen ci ba jëriñ leen ci ba indi leen ci maanaam waa gi dimbali leen suñu lépp gis waaye nag damay li ma bëgg li ma jàpp moom monsieur Diouf dina bëggee lool. loolu mooy mooy sama yéene ci yow. gis gis gis ci yow. mais yaa ngi ci waxtu. loolu mooy li ci li ci moom loolu ma ko waxee rek. dafa yàgg lool dafa yàgg lool am na jamono yii yàgg nga ma ko wax. dama na nga toog te déglu ma Sëñ Tuubaa daan liggéeyam. damay yow li tax loo ma wax ma nangu ko du ma ci seet dara mooy damaa xool sëñ bi moo du ma xool sa dara loo ma wax rek dama koy nangu du ma ci lijjanti